day faj dalay fekk nga feebar mu pikiir la pikiir la jox la ay garab nga naan nga daal di wér. borom boobu leer boobu. borom boobu ay yow bul wax lool de Aba sama nit la de Aba xam ne ni ma ko bëggee. xanaa déggoo kooku nee na Aba maa la bëgg Aba lu tax mu tippool la.